Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa yow mi nga xamanteni si yow yaay safo alquran ba boko diggi déggee amati jamm. dégg nga kàddu muy suñu champion waye di champion Afrique waaye di champion Sénégal waaye dañu di champion gox bi di Njàmbur Louga man ak yow ak keneen ku mu mën a nekk suñu cofeel ci alquran muy téere yàlla bi subhaanahu wa taala nan la war a mel suñu yàlla séddee ab xale bu ndaw toll ci fukki at ak benn dem ci réew yi jël fa ndam lu toll naka 68 pays daje mu jël ci sixième boo xoolee seen àdduna bi fii di Afrique mu jël fi deuxième fii ci senegal mu jël fi première ndax kii jarta teeru ndax ki jarta teral ba nang yow mi may déglu partagel estatil nasiw àllarba ca ngoon àllarba bii ñu dëkkmal incha allahu rabbuna ca bayaalu coxna ba bayaalu sidi jamin ba insha Allah rabbuna fan nañu nara terto suñu champion bi di soxna xadi dramé demon ci dubai indi ñu ndam lu am solo ñi ngi ñaan yalla nañ ñu fekk ak jam ba yow mi may deglu bo la ci kenn ëppale li nga yëgal ci ay nit nañ ko jël ci buntu espia nañu def ak mom suñu tour logo biñ dan def waye nañ alarba ca ngon ca 3 h la lol di doon ñu wara dajé nañ ca bayaalu coxna ba yow mi mënul ñëw SPIA yow mi am oto yow mi yor jakarta yow mi yor kaar yow mi yor tata woo nañ la ci barkeeg alquran nga ñëw ci bis boobu ñu ngi woo mboolem ku nekk ci Louga ci njiitalu Serigne daara yi ah suñu bis la bisu Sénégal la yow mi romba Thiès yow mi romba Kébémer yow ma ca yow ma ca Ngumba ku mën a ñëw ñëwal bis bii ñu sargal suñu doom sargal suñu rakk yëkkati rayati alquran ci beneen yoon na nak muy jigen muy jigen ñu xamni bis bi nak bisu aja khadila la ñepp ñi wa ngi leen ci wo ah kenna, ngalama wa ahlul luga gatch ngalama wa ahlul luga bu leen kenn ci dajja ga na ngeen ko defi woon noonu nañ ko bëggee bon na fa woon partagel estatil nasiw àllarba ci ngoon ca bayalu si di jamil à trois heures ñu ngi fay xaar mboolem ku nekk Louga wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu